jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk nag bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, sa waay amaat na lii di kontaan ak bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala mën naa ne soxna yi képp koo xam ne dama laa dal ci biir sit bi rek saa su nekk damay bëgg ñu yaatal ci xam-xam ngir ñu ñuy topp saa su nekk mën cee jëlee njëriñ lu kaay seen njort. ki may dalal tey nag miin nañ ko ci biir euh, réseau bi ndax euh, doon na koo xam ne su ñëwee rek waxtaan dina ko teg ci xam-xam xanaa gëj a gis bi la kooku mooy yaa Seyda Arame Diouf dinañ waxtaan ci ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk mu ngi ciy def résultat waaye duñ fa jógee xew-xew jamono dinañ ci waxtaan am na loo xam ne gis na ko ci réew mi ak ni muy doxee rawatina waa gi nga xam ne ñoo ko ngànk jiite ko président ba Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko waaye làmb ji dox ci diggante Tapha Tine ak kii di Balla Gaye 2 su ngeen bëggee xam mooy daan ndax tafaade daan bi yoon fayu wala 2-0 lay doon tey yaa Seyda jox leen victoire bi li kenn ñemewut dina ko révéler fii tey ku déglu tey nga dégg xam-xam waaye di nga déglu révélation am solo yaa Seyda damay bàyyi nga nuyoo mbokk askan wi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di wax bisimilah rahmaani rahim yàlla nañu yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin <laughs> Cheikh nuyu naa la nuyu naa sa collègue mm-hmm. macha allah fa tabarakallah di ñaan yàlla site bi yàlla na nekk télé comme ma ko doon ñaanee. Mm-hmm. di ñaan yàlla tamit émission bi lépp luñ fi wax yàlla na nekk dëgg. Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal di nuyu waa bitim réew. ndax nee naa ñoom ñoo ma dooleel. tarkal boo ñëwee sama kër gi samedi ak dimanche dangay fekk mu fees dell ndax man li ci ëpp léegi ñàkk ñàgg laay nekk. wante samedi ak dimanche gars yi fii la ñuy toog di ma xaar parcelle. nee naa tamit téléphone bi saa bu ma defee ak ñi nga xamante ni ñu ngi may woote jot ñu ma ak ñiy patienté di envoyé ay ojo wala ñu dugal seen xaalis ba léegi te kenn seetalagu leen mhm. neena nag man duma ma bloqué kenn képp koo xamante ni dugal nga sa xaalis ak lu mu yàgg-yàgg rek dinaa la mhm. seetal wante saa bu ma defee émission damay jégalu mhm. ndax nee naa woote yomb na nit ñi wuy si la tamit yomb la waaye pour nga satisfaire ñëpp nag loolu moo jafe alhamdulilah comme ñu ngi def ay résultat ba léegi 2018 ba léegi macha allah fa tabarakallah jërëjëf jërëjëf yaa Aram Diouf ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen yu set yooyu tan ak dal ñu ci kontaan bu baax fu seenee waxtaan ci xam-xam nag comme ni ma koy defee saa su nekk ku ma fi dalal ku ma fi dalal nag danga naan moo fi gën a taxaw ci seet yaa sayda bu nekk yaay faal bu nekk waaye yaa sayda aram juuf ah seet ku bëgg seet bu leer fe ngi doon fexeel nga jéem a jokkoo ak moom del si waa tamit seet bu yéeme bi ngay def waaw seet nag dama naan bu fekkee jinne la ci senegal man la waaw ndax nee naa leen ci commencement ba tey li ma waxoon mooy seet ku kondorong ma ma ko jox aw ma maam boo xam ne dafay seet pettaaw mm-hmm. aw ma mbokk muy seet pettaaw boo demee sama cosaan saalum uh-huh. am naa maam buy seet ci ramlu wala ñuy seet ci ndox wala ñuy mm-hmm. seetee ci beneen facette waaw waaye seet pettaaw lépp lu ma ci wax nit mm-hmm. du dañ lay des su ma ne la tey dama laa seetal da ngay gudd fan da ngay gudd fan bu ma la seetalee ne la da ngay génn àddina jaru sax ngay génnee sarax ah. xamal ne da nga koy ma la seetalee ne da ngay tukki da ngay tukki bu ma la seetalee ne tukki bi dafa baaxul jarul ngay dem ja ngay sarax tarkal seet moom lu ma ci wax nit soo yeboo nga bind ko téye. waaw waaw tarkal la seet nag. Ah. ñëpp xam nañ ma ko fii ci Dakar. waaw a Assainies unité 25. Mhm. boo fi dëkkee ba léegi macha allah fa tabaaraka la tuxu ma fi. waaw boo fi ñëwee samedi ak dimanche dangay fekk nit ñi rang ba ci biti. Mhm. téléphone bi macha allah fa tabaaraka la 24 heures sur 24. dafay sonné may wuyu ñeneen ñi dañuy wuyu ba sonn. Mhm. kon ñu ngi sant yàlla. waaw lépp loo xamante nii wax naa la ko ci seet da ngay gis koo xam ne dama ko seetal sax mu dem ba mu yàgg mu woo ma téléphone ne ma yaa see daal li nga ma waxoon daaw wala li mhm. ma fàttali seet boo xam ne man maa ko seetaloon fàttali mu yàgg mhm. ay audio ngi sama téléphone bi wala ay appel yoo xam ne dama koy wuyu nga koy dégg tarkalla lu wér kon seet mhm. sama foor la waaw seet petaaw jàng naa nag yeneen xeetu seet ndax nee naa la sama jëkkër mos na ma jàngal seetu ram li jàng naa tamit keneen koo xam ne jàng naa fa seetu ndox seetu tomb tamit jàng naa ko bi ma demee Mauritanie. Mhm. wante seet pettaaw laa gën a maîtriser. kenn ku nekk nag lii sa fort moom ngay wax. waaw seet pettaaw mooy sama fort. lépp lu ma ci wax nit bindal téye. tarkalla ku bëgg am alal bu ma la ci seetalee bu ma ne la da ngay am alal génne la sarax tel. Mhm. maa la wax ne la koy am. su ma la seetalee tamit bu ma ne la am jëkkër nangam. sarax nangam ngay génnee. Mhm. jaru sax ngay sangatu da am.

maanaam nit ki tey dafa war a dee. mu génn saraxe. waaw ñu ñaanal ko yàlla mu gudd fan à vie. Ah. nga gis koo xamante ni dafa amoon alal alal ji di yàqu. Uh-huh. mu génnee saraxe ñu ñaanal ko yàlla. macha sarax ngir yàlla nag laa wax. waaw mu saraxe alalam di gën a yokk. waaw nga saraxe war a gàtt fan nga gudd fan. Ah. nga saraxe war a dee te deewoo nga dund. Ah. sarax amul lu mën ci doomu aadama moo tax képp koo xam ne yaa ngi dajale alal. Uh-huh. te bëgg a mucc ci bët ak ci làmmañ. Uh-huh. del saraxe del dimbali koo tene. jërëjëf acca ah. numéro moo af suñ ci suufu baar d'écran bi leer nañ yow fexe koo woo rek dina jëflanteek yow ba soxol sedd guy acca faj bi nag xam nañ la ci bu baax nga ciy def résultat faj ci ren bismillah waa faj nag nee naa faj ci ren moom waaw jooni jooni la tarkal léegi léegi léegi boo ma indilee malaat léegi léegi ma faj mu wér est-ce que amul sax demal ma ñëw waaw reen ak sunguf nag dama ciy faj mooy koo xam ne dafa am hémorroïde wala am dafa am ndoxu siti mhm. wala dafa am problème mu ngóora waaw nee naa la garabu ndoxu siti bi ku ko naan wéroo ñëwul ma delloo la sa xaalis loolu de leer xanaa kon man maa efficace ku wóolu sa bopp rek a koy wax voilà kon faj ci garab reen ak sunguf mhm. cosaan la fi lu fi yàgg la fi médecin ba mu fi ñëwee yàggul médecine mhm. bi mu ak sunguf moo fi boo daan am doom ci wanag yi xam nga wanag lu wér mooy comme genre euh, wanag yooyu ñu jël ay ruq rek ci ginnaaw ko amagul waaw mhm. ci reen ak ci sunguf ci lañ la doon reewlee waaw bu dee nekk nga nitu ndox mhm. war a jàmb ci lañ la doon faj ba nga wér mhm. kon ren ak sunguf dëgg la ça dépend nag ci ki kay faj ak ban secret la am pour faj ko lu am solo ak fan la ko jàngee ak nan la ko maîtriser waaw ak li la yàlla may nag nga dëxañ ko ci biir parce que nee naa nit a ngi jàng am ay secret dajale biif la teg te mënta ñaan mu nangu waaw nit a ngi toog amul benn këyit. Mhm. te bu taflee sax yàlla def ko. balay ndeysaan seen borom loolu xam nga li koy indi. Mhm. mooy lekk lu la lew. ak ragal yàlla. Mhm. ak maandu. ak ñàkk foyee sa bopp. lay ndeysaan. moo indi loolu. lu wër. moo tax doomu aadama boo xam ne ñaankat nga danga war a set danga war a sellal. waaw set nag sellal loolu yàlla la neex. waaw ndeysaan kenn jarul muy bàkku ci ñun ne man maa nekk nii. tarkal la wante nga def ci waslu ci sa àq. waaw waslu ci tamit sa àqu taalaa. loolu mooy ñaan gu nangu sëriñ boo gis muy njaalo wala ah. sëriñ boo gis muy lekk loo xam ne lewu ko mhm. du ñaan yàlla yàlla nangu tarkal la ñaan yàlla boromam dafa war a set dafa war a sellal en même temps tamit sunguf reen waaw comme xaatim la rek ak big ak fooy nit a nga bind alxuraan mhm. macha allah mu jàpp waaw nit a nga bind alxuraan tamit mhm. jox la ko jàpput ci alxuraan ji ci ki la ah. nit a ngi gasi reen ak sunguf waaw macha allah bu la ko joxee léegi pël yaa ngi fi pël fas rek lay def amul alxuraan sunguf la lay jox boo ko sangooyee am xaalis. Mhm. xaalis nag damay wax nekk benn sëriñ du ko napp di la ko jox. Ah, waaw wante daf lay sangat nga ubbeeku ba loo ba max mu dem seede yàlla. ndeysaan lu wér. waaw oh. sangat. Mhm. sangat la sa yaram bi neex. waaw nga ubbeeku foo tourné nit ñi di la wax da ngay gis koo xam ne dafa tëju ràpp. Mhm. nga nekk ci mbooloo ñuy servi. kenn du la jox dañ lay jéggi. loolu tëju tëju la lu wér. <laughs> voilà kon sangat. waaw lu am la. macha allah. Mm. mu ngi noonu. dégg naa nga wax ko ci sa biir yi wax ndax doon na loo xam ne moom la ëpp nit ñi loo xam ne saa su demee dinañ ko waxtaanee mu di néew kàttan nga xam ne li ci ëpp nag ci ndaw ñi la xaw a na mënuñoo yàgg sax ci kaw lal te sëy nag balaa neex yaakaar naa kër gi moom il foo mu am kàddu kër gi bu amul kàddu rek dañ la fa romb <laughs> waaw bëri na divorce yu nekk ci Sénégal waaw lu ko indi yëpp mhm. mooy perte gi nga xam ne xale yu góor yi perte nañ ko seen góor lay ndeysaan <clears throat> te lu ko indi mhm. fa moo ci jiitu waaw ndax nee naa la xale bu góor bu am 18 ans Sénégal mhm. te ñemul jigéen waaw bariwul ndeysaan bu dee 100 personnes lañ juróom-ñett fukki yëpp. Mhm. laal nañ jigéen. mu ko ok de doy te xale buy fooyee sa bopp wala ngay mballu. Mhm. doo mujjee ngóora. waaw waaw kon de ku koy def ba ko. Mhm. ñaareel bi tamit rab daf koy def. waaw rab nee naa la dañuy déqati garab sànni te duñu sarax. Ah. Ah. dagg tali duñu sarax. waaw yooyu dafa am fu ñu dëkkoon. Ah. bu ñu amatu fu ñu dëkk dañu ñëw dëkk ak nit ñi. sa doom lekk raxasut loxoom bi. waaw rab dugg na ko su nekkee góor la. bu nekkee rab bu jigéen a ko dugg. waaw ah fii lay nekk ak moom. nga sangat bi nga takkal téere ba sonn te du dem. walaay ndeysaan parce que ci weyam yi lay jaar. bu yor sa doom. Mhm. weeyi sëq. waaw daggal xale. waaw xam nga fii Sénégal dañoo am benn aada dañoo wax ne xale boo daggee ay weyam day sàcc. waaw ba duñ ko dagg da gis mu gudd rek. loolu ay wax la rek. waaw wante xale bu yoree ay wey yu gudd daggoo ko. fa la koy rab duggee. surtout bu ah. lekkee nag te raxasuwut. bu dee jigéen la moo koy dëj du gaaw a sëy su dee góor la. jabar jum am dina dem parce que mi ngi sëy moom tout le temps day dem ba perte ngóoraam. waaw su kenn nag tamit ndoxu siti tamit daf koy joxe. Mhm. koo gis mu am ndoxu siti day am hémorroïde. walaay ndeysaan ku am euh, hémorroïde. waaw du am ngóor. ñett yi ma la jox nag mooy couche bi. macha allah di góor buy fooyee boppam. Mhm. ak xale boo xamante ni dafa nekk xale bu góor kenn sàmm ko. Mhm. lekkee dem tëdd nelaw. rab dugg ko mu nekk aw gelam. gel bi lay tëdd tout le temps suba ak ngoon guddee bëccëg. kooku dafay tax mu tële ñaareel bi yoon bi ndoxu siti parce que jën bu ñuy lekk dafa nekk jën bu ñuul waaw mu jox ñu ndoxu siti ndoxu siti boobu dafa ñuy jural hémorroïde hémorroïde boobu moo lay indi tële tarkalla ñett yi moo koy jox macha allah ku ma ci woo nag ci sama numéro yi dinaa la ko leeralal ba mu leer nañ jërëjëf mu ngoog numéro yaa ngi noonu acca sëy nag dinaa ci dugg ñu xuus ndax euh, ñi bëgg borom kër mu jafe leen waaye ñi nga xam ne dañoo bëgg soxna mu jafe leen it na loo xam ne bari na ci réew mi waaye naa ku ci jëflanteeg yow rek mën na ci am tawféex waaw dama ne jëkkër nag moom képp koo xamante ni bëgg nga ko. Mhm. baasal si buntu kër ba pare nga doog maa woo. tarkat la loolu de neex naa dangay baas ba mhm. pare yow ku jigéen ki. waaw soo ko ñëw sangatu ci man boo yeggee am jëkkër. tarkat la bu dee góor la tamit nee naa la takkal sa guro ga dem yóbbu yóbbul paay ca jumaa ji ñu xaar la. waaw boo demee ñaane dañ lay may. ndax am na góor yoo xam ne fu ñu dem ñu dàq leen. sangat bi boo ko sangooyee foo dem ñaane ji ñu may la. waaw macha allah moo xam tubaab nga bëgg. Mhm. moo xam nit ku ñuul la. moo xam naar la. yow bëggal rek nga ñëw ci man tarkal la incha allahu taala bu ma la joxee sangat bi boo ko sangooyee waaw këpp lekket gi ci sa bi ko dem ñaani ñu may la tarkal la tout tànk mënuñ koo fàtte doonte mënta ñàkk mhm. ñi bëgg doom mu jafe leen waaw ñi bëgg doom tamit nee la ren laa ci am waaw da ngay ñëw jour bi nga xamante ni yow yaa aye bu dee da ngay ay ay lantoo wala bu nekkee yow ak sa jëkkër yéen ñaar dong yéen a nekk mhm. da xooj reen bi waaw 18 mhm. da ngay am doom ah. <laughs> allahu akbar incha jërëjëf yaa Seyda Arame Diouf ndax nee naa la man gàllaaj bu ñuul laay fajee reen ak sunguf mhm. lépp lu ma am yàlla ci loolu la ma ko may tarkal la lépp lu ma ci wax nii tamit du dañ mu ngoog mooy ren ak sunguf fas waaw waaw noob mhm. produit laa ci am gàllaaj bu ñuul waaw diw toog laa ko tuddee moom laa ci bind tarkal la soo ñëwee ci produit bi boo xoolee produit bi diw toog xam nga lan mooy diw toog déedéet xaw ma ko de laajoo ma ko wax ma ko <laughs> wax ñu ko sax mooy da ngay dem dugg ci salle de ba raxasu ba set macha allah fa la sangu xeeñ sa xet gu neex. waaw woo doo say sër yu weex. Mhm. fekk sa jëkkër a ngi jàpp njaax. waaw nga daal di jël produit bi laal ko ci sa baaraam bi mhm. mooy baaraam digg bi. waaw diw ko ci sa kanam gi. tëdd ak sa borom kër ngay ñëw toog ci kawam rek. tarkalla loo wax. mu def mu def jox la. tey ñun góor ñi fuñ jëm. waaw ndax noobu lekk damay wax ne à chaque fois dafay joxe. conséquence man du ma joxe noobu lekk. Mhm. noobu diw toog laay joxe. kon de boobu moom képp koo xam ne bëgg nga sa jëkkër nob la yaa koy bàyyi waaye moom dootu la bàyyi de jërëjëf waaw mooy topp sa ginnaaw tamit dootoo toppati ci ginnaaw maa la ko wax <laughs> ñun góor ñi am nañ problème dégg ngeen noobu yaa sayda boobu kon xam naa loo ci liggéey xamal ne du doy ndax xam naa uh-huh. euh, seen mbokki jigéen ñi dinañ ñëw fàggu si ko ci yow jërëjëf acca euh, ñi bëgg alal am ñoo xam alal ju gaaw lañ bëgg nag waaw nee naa alal alal nag benn sëriñ du ko paqueté di ko jox kenn waaw ku la wax ne la kaay ma paqueté xaalis jox la ko waaw daf lay dóor moo xam daf koy wecceeku moo xam ci beneen fa waxati ko waaye am nga nag sangat moo xam alxuraan la wala sunguf la ma coppati ko def ko ci sama leket gii. waaw yëngal ko. Mhm. jox la ko nga sangoo. waaw mbuus sax boo ko jaayee ñu wër la. allahu akbar waaw. lu wér bayre lu am la. wallaay bayre boo gis nag day ànd ak kaaraange. nee naa képp kuy sangoo bayre. Mhm. te sangoo woo kaaraange. la kaso nga lu wér. wala nga dee deewu kaaraange. <laughs> waaw lu bayre dafay ànd ak kaaraange. Mhm. waaye dama ne la sangu am xaalis. man am naa ko. macha allah. maa ngi ciy dund te ci laay sangu waaw waaw te ñëw nga sama kër macha allah fa tabaaraka waaw tawfiix li may sangoo nag loolu laay jox samay client tarkalla alhamdulilah jërëjëf acca ñuy jeexale nag bokk na ci xew-xewu jamono du fekkee amut leneen loo leen bëgg a baaxee damay dugg ci actualité mhm, duggal aywa jërëjëf acca yaa Seyda Aram Diouf gis nga ba waak léegi ñu ngi lay door a dalaat mhm. am nañu président bu bees am ñu ministre yu bees lan nga gis ci réew mi ak ni muy doxee jamono ji ñu toll coow li nag bëri na. waaw président bi nag damay wax ne ci ñu porté woon combat bi ci laa bokk. Ah. ndax man moom ku dugg ci sama chaîne YouTube wala nga dugg sama TikTok xam nga ne man patriote la en 100 pour cent. Mm-hmm. làqatuwuma woon nëbbatuwuma. waaw suñ moo waxee ci Ousmane ko damay wax. waaw wante suñ soo waxee pour dugal ma nag damay bañ parce que jamono boobu dama ne benn terroriste moo nekkoon Sénégal mooy Macky Sall. waaw ndax démb dama dem cité kër góor gi jaar ci rond point bi. Mhm. gisagu gisatuma benn fourgonnette bu fa taxaw. gisatuma gendarmerie gisatuma policier. ma ne kon ana terroriste yi <laughs> kon terroriste bi laa Macky Sall. xam naa nag soo ko waxee boo xëyee ñu saaga la ba nga sonn waaye garaawul. Ah. man yàgg naa encaissé. Hmm. ragalu ma tamit ku wax ak man waaye benn terroriste moo nekkoon Sénégal mooy Macky Sall. tarkal la alhamdulilah léegi foo teg sa ngeganaay da ngay nelaw. émission tamit bu la neex nga wax sa soxla. waaw ndax bu njëkk boo ma laajee damay daw responsabilité du ma ko nëbbatu lay ndeysaan ndax nee naa la jaboot bu dem kaso dafa metti waaw waaye dama ne nguuru basiiru Jomaay Fay gi ak ma bokk bokk ci ñoom nañu wut gàllaaj am na ñoo xam ne ñi ngi taxaw pour féewale Sonko waaw leen ah. dëddër le Sonko ak Basiru Jomaay Fay te lii ma lay wax nii six mois ci kanam waaw ci teg sa bët nguur gi dana bëri coow dana bëri ay tàkk-tàkk waxoo jàmm de waaw man maa la ko wax fii laa la waxee te nag mosoo maa laaj mhm. ci affaireu làmb wala affaireu football ma wax ci ah. lii nag lu ma gis la comme ñoom ci ñoom laa bokk. waaw te jotewu ma ci ñoom dama koy wax ci internet bi. pour ñu hmm. jot ko ñu <laughs> jot ci seen bopp nag. waaw waaw parce que Sénégal gàllaaj moo ko yore. Ah. te ku leen jege nag. waaw moo leen di dugalal liggéey ba pour tàqale leen te bés bu ñu leen tàqalelee. ñoom ñaar tàqale leen ñoom ñaar. pour séparer président Bassirou Diomaye Faye ak Sonko xam nga dañ mooy Sonko Sonko mooy Diomaye. waaw bés bu ñu leen séparer seen nguur daanu. illallah waxoo jàmm ne. Sonko nag laay moom mi nga xam ne mooy mag mi. Mhm. na fexe mu téye Bassirou Diomaye Faye ak lu mu a dékku ak lu mu mën a daj. te lépp lu mu ci mën balaa juróom benn weer Casamance la dëkk te xam na lu mu war a def mhm. na dem uti jigaa laaj tarkal la audit bi gars yi nee nañ dinañ ci jëm képp koo xam ne yor nga xaalisu réew mi rek dinañ ko càmbar waaw waxee wala dugub waxeewu ma ko pour bañ waa kër ki Sall wala ma bëgg waa kër Sonko hmm. li may wax yàlla rek a tax ma di ko wax dina bëri kilifa yoo xam ne danañ dem kaso man maa la ko wax dinañ bëri kilifa yu dem kaso hmm? waaw waaw dana bëri ay boromi maire yu dem kaso dana bëri ay ministre Macky Sall yoo xam ne. waay ñooñu dem kaso ñoo ñan lañ waay wax wa jàmm de. Ah, du ma la tuddal tur nag. parce que man préféré wu ma di wax naan diw wala diw. <laughs> nee naa la du ma wax mbër mi mooy daan. waaw wala président bi mooy falu. acca kon mu noonu. waaw ma ci làmb ji ñëpp di xaar fi mu ne nii nag. mën naa ne mooy coow tafaatin Balla Gaye li ma ci gis man bëgg na ñoo xam kii daan li ma ci gis. Hmm. du ma wax ne diw mooy daan wala diw mooy daanu déedéet loolu du ma ko wax. Hmm. waaye dama ne Balla Gaye. mooy tul jigéen bi lay indil gàllaaj Balla Gaye na moytu jigéen bi koy indil gàllaaj bu koy indil gàllaaj a foob noonu lu xew déedéet loolu laa ko wax moom après su déggee vidéo bi dina comprendre wala mu xam ah. wala mu defaraat entourage am baaxut wala gàllaaj boobu da koy daan gàllaaj bi ci boppam ah. tànk buy metti la koy indi la ilaha illallah te bu ko indilee tànk buy metti ah. su demee bëre ji waaw mën na ko indil yeneen gàllankoor wala mu indi ko beneen feebar na moytu daal jigéen bu ko indil gàllaaj biir këram tafaatin nag loo gis ci moom tafa tafaatin moom gisuma ci moom dara wax dëgg yàlla gisuma ci moom dara laa gisut ci moom. gisoo ci moom ndam gisoo ci moom dara gis ne moom. Mhm. dina am benn jigéen. waaw boo xam ne dañ koy yebal ci moom. Mhm. mu mel ni da ah, ko seppi mu sànni ko fee wala mu wut ay garde corps yoo xam ne dañ ko téyel buntu këram ba jigéen du fa dugg. jërëjëf bu fa jigéen duggee yàq ah. làmbam. jërëjëf yaa Seyda. Mhm. ayca ñëwal ma ci làmb ji dox ci diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès kat mooy daan dimanche incha allah loolu la ñëpp di xaar ci yow. waaw comme li ma doon lay wax nag laa lay waxaat du ma wax ne diw mooy daan wala diw du daan. wante dama naan Sa na gën a teey su duggee ci biir làmb ji. waaw ah. loolu daal làmb lu ma la ciy sànni la. Mhm. na gën a teey wante nag du ma la wax ne la diw mooy. daal lu xew ba nga dana gën a teey lu xew loo gis. Ah, jëlee luñ la war na gën a teey rek. su gënee teey rek incha allah yàlla dina ko mënal boppam fi mu war a jaar bu soobee yàlla. Ah. salaamaaleykum am déedéet am seen nag. am seen ak mooy bëre. am seen Sa Thiès waaw am seen loo gis ci moom. am seen ci boppam. waaw. man <laughs> Sa Thiès daal laay wax ne. Ah. na gën a teey moom ci làmb. yeewil ñi lay bàyyi xel boob mu leer. Hmm? Sa Thiès na gën a na gën a teey ci làmb ji rek. Ah. waaw loolu sinon su ko defut luy xew noonu du teeyut luy xew. déedéet na gën a teey daal. Ah. man daal loolu laa am lu ma ko yebee. su fekkee am naa dara lu ma ko yebee waaw mooy na gën a teey ci biir làmb ji bu duggee ba ci biir géew ba waaw mu xool bu baax te xippe ay bëtam waaw loolu la am lu may wax jërëjëf jërëjëf aci ci lan ngay tàggatoo tey waaw maa ngi tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo. <laughs> di leen jox tamit benn astuce boo xam ne moom ngeen di utiliser yenn mbokk internet yi ndax bu bu sa ngeen ne ma yaa Seyda doo joxe secret. <laughs> secret dafa cher ci man. ndax moom laay liggéeyee. <laughs> kon joxe secret yombul ma. Ah. képp koo xamante ni da nga am njaboot. mu tasaaroo. da ngay jënd kilo basi. waaw ma koy message dama ko waxoon ci sama TikTok. kilo basi ngay jënd. jënd kilo dugubu suuna. bu ñu soq ba pare. nga tibb ci basi bi nag sa ngëbu loxo. waaw lal ko ci lal bi summeeku ba mu set wecc nga daal di ciy toog. waaw boo ci toogee li la taq. Mhm. moom ngay faxas ci li nga sebeti woon mooy dugub boobu. nga dem wal ko def ko cere wala nga def ko caagri. waaw wante nopp boo xam ne la nag bu fanaanee day rey. waaw lekk ko ñëppay juboo la ca def nag ngeen dem tuuri ko. Mhm. wante bu leen ko fanaanal di ko lekkaat. kon asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu.